Euh, statistique maanaam li nga xamante ni police liggéey na ko ci wàll wu ni mel wane nañu xeetu sineebar yi ñuy jëfandikoo ci réew mi li ñuy woowee ci suñu làng yàmba moo ci gën a ëpp solo am na ci nag yeneen xeetu sineebar yoo xamante ni xëy na soit yenn saa yi day jaar ci réew mi euh, lu ci bari maanaam li ñuy woowee zone de transit wala mu am ñoo xamante ni dañ koy consommer mais échelle bi yeggul fi nga xamante ni foofu la yàmbaa bi yegg te bu ñu seetloo saisi yi nga xamante ni def nañ ko ci yépp bu ñuy comparé ci région yi yiñ ko saisiré cees moo ci jiitu Kolda moo ci topp région wu Dakar doog a ñëw région wu Sédhiou ak région wu Diourbel alors loolu li koy expliquer mooy boo seetloo ci weer yi nga xamante ni saisi yu ëpp solo ci lañ ko def mooy ci weeru juin ak weeru avril ak weeru mai dafa tombe ak fi nga xamante ni fi la ñuy yëkkatee li ñu doon woowee les restrictions maanaam tënk bi ñu tënkoon nit ñi euh, jëlee ko ci xeex mbas mi yëkkati ko ba tax nit ñi amoon maintenant sañ-sañu dem ak dikk bu loolu weesoo li nga xamante ni jàpp nañ ni moom moo gën a waral xeetu euh, sineebar bi ñuy wax yàmbaa gën a bari dafa am lu ñuy woowee maanaam mbay mbayum yàmbaa dafa gën a dañoo seetlu ne ci yenn parti ci réew mi mbay mi dafa gën a dafa gën a am solo loolu nag ay pexe ñu ngi ko ci def jaarale ko ci direction bii ma tudd léegi ngir mën a gën a xeex gën a xeex loolu ci li nga xamante ni constaté nañ ko ci li nga xamante ni moom la ñuy tuddee ay infraction maanaam ci ñi nga xamante ni jàll nañu yoon mu ngi toll ci 22 422